ndax tay bo jëlee comme ni nga ne étudiants ni ñu def déconstruction ñoo fekk ben affaire mais. ñu daj ko dañu war leen non islam mën nga def la si déconstruire mënoo non pas déconstruire alcorane c'est pas possible mais tey euh, li ma bëgg wax moy tay affaire soufisme bi ñun buñ ko jëlé ñu indi indiwaat ko ñun ci sunu réew fi tay mm-hmm. dafa melni soufisme boobu mom nee jamm lañu indil mm-hmm. soufisme jamm lañu indil mais soufisme indi luñu tay ay jikko yu baax ci réew mi ah, tey ñëpp a ngi jooy ne jikko yi dañuy gën yàqu sëñ bi mais mi ngi mel xam nga xam nga mi mel ne nga ne lislaam tey indi lu ñu jikko yu baax tasawuf maanaam xam nga diine day ñetti xaaji diine diine ñetti xaaj la iman islam ihsaan iman tawxid moo la koy jàngal islam fiq moo la koy jàngal ihsaan tasawuf moo la koy jàngal ilmu tasawuf moo la koy jàngal kon nattukaay boobu moo tax des boo ci dee nattu ku ci bari ñu bari nañ ci natt dañu juum dañ naan li indi lu ñu nangam diine l'islam xam nga ne bi mu la bëgg a laa nekk dama fii tey ñun sunu l'islam loolu ba léegi sunu l'islam tey ñun ñun Sénégal indilu ñu naataan naataange indi lu ñu ñu set indi lu ñu ñu am wér gu yaram. Hmm. indi lu ñu sunu fan sunuy fan gudd indi lu ñu ñu am. Euh, ñu am jikko yu rafet ah, tey sunu ñun l'islam si réew mi. l'islam échec la parce que l'islam lu ñu discipline déedéet déedéet def accident di reete ñun sëñ bi l'islam tey boo xoolee tey l'islam am na yoo xam ne nee na moom yàlla nee na du ko baale si alxuraan hmm. lu mel ni bokkaale hmm. mais tey làmb ji bokkaale la ñu gis ay xërëm ah, mu feeñ fës nga gis ay euh, kilifa ñëw toog premier ministre toog ñëpp toog ñuy xërëm benn ñaar l'islam boole na si bàkkaar yi gën a mag juróom-ñaari kabaayir yi mm-hmm. l'islam daf see boole riba ñun tey riba lañ ko dégg sans problème euh, lislaam ñun ñoo xam ne dafa tere sàngara ñu ñëpp gis nañ suñu ay baar ñu ngi ñu ngi ñu ngi sàngara te sëriñ saa ngi fi kilifa yaa ngi fi ñëpp a ngi fi yooyu yëpp lislaam bañ ko mais man gisuma musuma gis yéen waa axlul tasawuf mm-hmm. ngeen ñëw ne da ngeen di doxu ñaxtu ndax riba daa am ci réew mi mm-hmm. dama musuma gis ngeen di doxu ñaxtu ndax làmb ji euh, dañuy dañuy dañuy xërëm mm-hmm. musuma gis ngeen doxu ñaxtu ndax euh, sàngara lislaam bëggu ko musuma gis ngeen doxu ñaxtu ndax njaalo réew mi dañ ko fee dagal musuma gis kenn ñaxtu si kenn kenn waaw moom laa la yooga xam nga tunkara euh, faw ngeen indiwaat mbir mi ci